wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xaljihi ajmain bokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu ca na mu gën a leen di ci jiital sunu kilifa yi ci jataay bi te di leen ziyaar ca war ja gën a mat mbokk yi ni ñu ko baaxoo defe mu di fàttalante ñaaxante soññante ci bu ñu dajee daje yu mel nii moo tax ñu yëkkati sunu kàddu kàddu yi nag waxtu wi xat na xam naa dañ koy tënk lu nu man ni ñu ko bëggee woon yaakaar naa duñ ko mane kàddu yi nag ñu di ko faral di yëkkati ngir di soññee rawatina nag ci bés bu amee nii solo te solo si foo ko natt weesu na ko bokk yi nañuy xalaat ñi waral bés bi muy waa barzaq nañu leen di xalaat ciy ñaan bés bu set ndax dara gënalu leen ko fa ñu tëdd waaye nañu leen di xalaat tamit ci xam ne lu yàgg-yàgg dañu leen fekki ndax li leen fa yóbbu duñu fi bàyyi amut yenn pexe ngir rëcc ci du bari alal du ko am kàttan du pouvoir du mbaax du mbon koo mën a doon ak noo mën a mel bés dina ñëw dee jël la yóbbu la nga fekki koo mas a suul ak koo mas dégg ñu ne dee ndax kullu nafsin daayiqatul mawt fii kenn du fi sax ñéppay dem benn benn kenn ku ne ci nun amoon nañu ko jege te gisatu leen muy waajur walla doom walla xarit walla dëkkandoo walla àndandoo dee di leen këf benn benn naan leen yomb ci biir suuf ndax xam nga kañ la lay këf yow lu tax doo xalaat ne mën naa doon tey lu tax doo xalaat ne boo tëddee tey ci guddi gi mën ngaa bañ a yow suba lu tax doo xalaat ne li ngay def mën naa bañ a àgg mu jël la moo ne dee dee jële na nit ci jamono bu ne ak ci nu ne laa taatiku mooy illa baxtatan ndax kat buy ñëw du la tàggu ndax xam nga ne ci lum la fekk rekk ca loola ngay dekkee ëllëg yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa moo ko wax yubaatu kullu abdin ala ma mata alayhi muy ci lu baax wala muy cab sawaan kon loo bëggut dee fekk la ca bu ko def bokk yi nañu bàyyi xel dee ci mu bañ noo fekk ci dara lu yàlla gërëmut te ñu waajal gannaaw dee ci topp yàlla akub yonenteem sallallahu alayhi wa sallam jéem a sax ci seeni digal lu nu man te xam ne kat loolu rekk tax suñu borom subhaanahu wa taala sàkku na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun jaamu ko rek jaamu ko rek ñii ñuy ñaanal tey muy waa barzaq boo ci laaj tey xeeb na lum jaamu woon borom rëccu na lum ci jotu woon a def kon yow mi yàlla may ngay noyyi ba nëgëni bul neenal sa sern sa góorgóorlu loo man bala ngaa dem di rëccu ne ñoom foo xam ne kat loo fa loo jëfut fii yónnee fa doo ko fa fekk te boo fa xasee dem dootoo delsi loo mën a duufale sab yóbbal war nga ko def mbokki jullit yi gannaaw loolu noo ngi soññ sunu bopp te di leen soññ yéen tamit ci tomb boo xam ne bu ñu sañoon ñu di ko waxtaanee bés bu set ci jataay yi ak yi fépp foo xam ne ay nit danañ fay daje loolu mooy lan mooy benn la sunu bopp sunu jamono ji bokk yi mel na ne noonu lislaam bi mi ngi waaj am bëggam li ñuy dund ci sunu réew mi léegi ci biir jullit ñi kenn mësu koo gis xiiroo bi ak ŋaayoo bi xeebante gi ak waxante gi lu bon weddeente gi ak dëkkalante gi fu ñaaw te ñun ñépp di wuyoo jullit ñu bokk benn buur mu yàlla subhanahu wa mi ñu boole sàkk moom nu te bokk no kenn nu bokk yónni ci nun muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa nu bokk luñ ñu digal nun jullit yépp te ñu war ko jëfe muy wax yàlla tabaraka wa taala ak waxi mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñuy alquran ak sunnas mustapha sallallahu alayhi wa kon ñoo bokk benn tool bu ñuy bayee ñenn ñu ne nag dañoo am aw waar wu ñu féete am jëwriñ ju ca jiite kenn ku ne bu fas yéenee aw mbayinam rafet ca lañu ko dooñ du tala lijjanti na moromam di baye ak ban façon ëllëg lay baye bokk yi wuute xalaat ak wuute gis-gis naka jekk mi ngi fi mësutee jóg waaye mësuta tax kenn di doye dal xalaatu moroomam wala gis gisat ci diine ji ndax kenn ku ne na mu gën a rafete rek la doon wër te yàlla rek a tax borom al madahib al arbaa yi wax nañ ko ba tey muy imaam abu xanifa imaam malik imaam ashafii imaam ibnu hanbal yàlla na leen yàlla doon dolli ngërëm li ñuy wute wute ci yenn gis-gis yi ñoom ñépp a warmalante woon kenn ku ne kenn ku ne nangul moroomam la mu nekk ndax ku ne ci ñoom la mu nekk am na ca lay wu dëgër wu ko ca tàbbal teye ko ca ci ñoom dundal yëpp da ko amuñu woon jeneen yitte amuñu woon jeneen te àdduna taxut woon darajee àdduna taxut woon alali àdduna taxut woon waaye ngir gindiku ak di gindee te jëm yàlla ji rekk tax kon koo ci topp ci ñii rekk yaa ngi ci dëgg ñàkk bokk ak sa morom fu ngeen féete bu mu la tax a jéngat na muy defe ndax loolu mooy ñàkk a wormaal gaa yu baax yooyu ñu tudd te ñu mat a weg lañ nag ñu mat a wormaal lañ bokk yi ak turuq as-sufiya yi ñu miin fii ci sunu réew mii muy ñu topp ak cheikh abdul qadir al jilaani muy ñu topp ak cheikh abul hasan al shadali muy ñu topp ak cheikh ahmad al tijaani muy ñi topp naa a cheikhul xadim yal na leen yàlla doole yi ngërëm ñoom ñëpp ñoom ñooñu ñax nga xam ne ñoo taxawal yoon yooyu genn jublu rekk lañu am te ñoo ko bokkule muy bëgg yàlla jóg jëm ca jaare ko ci alquran ak sunna su Mustafa sallallahu alayhi wa bëgg yàlla googu yi nag moo waral ñoom sunu sang su tedd soos yi seeni taalibe ñoom ñëpp muridullahi lañu leen daa wooye boo demee seeni téere fekk ko ca ñoom ñépp seenu dund dañ koo joxoon yàlla di ko liggéeyal ci diine ji di ko liggéeyal ci jaam ñi di xiirtal nit ñi ci yàlla seen borom di leen ca wammat jame tënku nag ci alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon ku leen gën a kennal yàlla amut ku leen gën a wéetal yàlla amut ku leen gën a màggal yàlla amut amut kenn ku leen gën a nangu ne yàlla moom jaam ñi moo leen sant ñu jaamu ko te moom rek a yeyoo jaamu ñoom ñépp liñ daa digal ñi aju ci ñoom ak di ko laabire seen mbokki jullit mooy ñu ragal yàlla jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara te jaar ci tànk sayyidina Mustafa sallallahu alayhi wa sallam te lii nag bokk yi mooy ak njullit xaqam kon ku ci topp kenn ci ñooñu danga ko war a jàppe sa mbokkum jullit mbokki jullit yi kenn ku ne ci noonu yàlla digal na ko tere na ko kenn ku ne li ko war kon mooy mu seet boppam njëkk ndax li ko yàlla digal lépp matale na ko wala déet ndax li ko yàlla tere lépp bàyyi na ko wala déet jéem a matale li la yàlla digal nag di jéem a bàyyi li la yàlla tere war na laa doyub liggéey sëkk walif di luñutu ak a jéebaane diw jëfewu ndigali yàlla yi bàyyiwu tere yàlla yi diw ni muy doxe ci diine ji nii du nii kenn ku ne ay wartéefam diggam ak boroomam bu ca nekkee dina tënku ba du tal diŋat ak ŋàññe mbokk yi yàlla dafa bind te yemalewut maye te tollolewut wuutale daraja yi lool ak tolluwaayu xam-xam yi ñii mu nëbb leen ñii mu fesal leen moo tax maandu ci lu la ump di lu war li war a doon sababu sàkk xam-xam nag mooy gindi ku njëkk nga xam ne yàlla dala wàcce àdduna digal la tere la nga war a xam lu lim la digal ak noo koy defee xam lu tamit lim la tere ak noo koy moytoo te jéem ko matale waaye xam-xam dee fu ko sàkku ngir werante wala ëppalante ko wala wane ne xam nga te kat wa fawqa kulli di ilmin alimun loo ko bari la bari la rek am na ku la ko ëppale ne dégg bërigu bu fees du def buruwi li ëpp solo rek mooy di jëfe sa xam-xam mbokk yi werante gi di nga tante gi weddente gi day waral du ñu mën a ànd du mën a booloo du ñu mën a bennoo te dafa bokk ci ndigali yàlla yi akub yónnenteem sallallahu alayhi wa sallam ñu bennale suñu bopp ñun jullit yépp te yàlla rek tax waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu moom la suñ borom subhanahu wa taala wax kon lépp lu ñuy teqale war nañ koy daw kenn ci nun matut ànd gi booloo gi bennoo gi ci la ñuy mottaleente ku bedd ko rek néew doole moo tax sallallahu alayhi wa sallam nenu aleykum biljamaa fa innama yakulu dibu alqasiyata min alganam booloo moonu war ku ci bedd ko rek seytaane man ko kon boo bëggee mucc bennool ak say bokki jullit ndax till gi gàtt di génnee moroomam beru lay ayibal lii tax nga mucc nag boo tàbbee ci mbooloo mi mooy ne booloo gi yërmande yàlla la bu ñu booloo yàlla day sotti yërmandeem ci nun sallallahu alayhi moo ko wax aljamaatu rahma mbokki jullit yi waruñoo seetaan kenn di ñu jaxase lenn yi adduna tamit waruñoo teqale ndax ay bokk lañ te mbokk dëgg mooy sa mbokkum jullit innamal muminuuna ixwa yàlla minu bind moo ko wax ay bokk nag warunoo xiiroo warunoo ŋaayoo warunoo añaanante warunoo yéenantew ay danoo war a bennoo jàppoo bu dëgër tey dimbalante mbokk yi bu ngeen xoolee yu metti yi xew ca sunu bokki jullit yi ca Palestine bu dee wéy ba nëga ñàkk benn jullit rek moo ko waral loolu rek exemple la waaye bu jullit yépp bennoo woon ba doon wenn say di dimbalante te yàlla tax ku ci noonu lislaam bi nar laal dina xalaat la ko cay fekk muy jullit yépp jógandoo jàppale seen mbokk ci wane seenu naqar ci wax ak ci jëf mbokk waruñoo noonoo ñoo bokkum noonu ñun jullit yépp waruñoo seetaan tamit ñu di ñu noonale sunum noon mooy kii xeex lislaam te noon boobu bu sañoon du ñu bennoo mukk ngir mu man di amul bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa nag wax nañu sunu mbokkoo nu mu war mel mu ne mathalul muminina fi tawaadihim wa taraxumihim wa taatufihim mithla aljasadi alwaxid ida ishtaka minhu udwun tadaa lahu sairul jasadi bi sahari wal jullit yi ni ñu war a mel ci seen biir mooy bëggante lool yërëmante lool ñeewantente lool ba àgg ci mel ne yenn jëmm ñoom ñépp ndax jëmmi nit ki bu ca benn cër dee metti jëmm jëpp a ko yëg li mu bëgg a wax rek mooy li ñu war a ëmbalante ci suñuy xol ci cofeel ci yërmaande ci ñeewante war naa àgg ci ku ci am naqar nga bokk koog moom ku ci am bànneex nga bokk kook moom loolu di wund ba tey ne sa moroom mu ci yàlla defali xéewal nga yéene ko ko te doo ci yéene kenn mukk lu bon lii dëggal loolu ba tey mooy li sallallahu alayhi wa wax ne laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen dugam gëm yàlla dëgg fi ak bëggalul moroomum jullitam li mu bëggal yi boppam kon jullit dëgg li mu bëggal boppam da koy bëggal mbokkum jullitam kon sa xol bi boo ci ëmbalee sa mbokkum jullit lenn loo xam ne yéene woo ko sa bopp sa ngëm yàlla des na dañoo war a bëggante soppante wóolante yéeneente jàmm bennoo di dimbalante jàppante bu dëgër nag sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muminu lil mumini kal bunyaan yashuddu baaduhu ba mu ne jullit bi dafa war a jàppante ak moroomum jullitam ba mel ne ni biri gi tabax bi jàppantee ba tabax bi taxaw taxawaay bu dëgër bokk yi ku la digal mbir ku ne nag tere na la sofaan ba kon sallallahu alayhi wa sallam tere nanu noonoo tere nanu teqalikoo tere nanu xàjjalikoo te képp ku jëfewul li yàlla digle moo ko yónnenteem sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwoo li ñu tere faw nga dajeeg loola naqari bés bokk yi am nasaraan dafa waxoon ne si chacun balayait devant sa maison le monde serait propre bu kenn ku ne bale woon buntu këram rek àdduna bépp set li ma bëgg a wax foofu rek mooy kenn ku ne na benn la ak njabootam njëkk borom njaboot yi bennoo rattaxal diggante yi di demlante ak a jëflante jëflante bu rafet seeni njaboot roy leen ca loola kilifay diine yi kilifay diine ji ñoom it ànd jàppoo di waxtaan déggoo bañ a réeroo nawlonte nag nawlonte bañ a xeebante yëkkateendoo di tegandoo ñi aju ci ñoom roy leen ca loola kenn ku ne nag ci taalibe yi jàppe kilifa ak moroomam ne kilifa ak boppam bokk yi fii ci sunum réew koo fi gis rek am na ci ku mboot moo tax kilifa yi bu ñu booloo woon doon wenn say te yàlla rek tax tey diisoo li ñu bëgg ci réew mi rek kay am waaye bu ñii dee fas ñii di fecc dara duma sa jàppaloo